ma xool nu may jotee premier ministre même gars yi bu ñuy kaas sax da dégg euh, da nga daan dégg ñoo ngi woo président Macky Sall ñoo ngi woo président Macky Sall mais léegi ñoo ngi woo Ousmane Sonko ñoo ngi woo Ousmane Sonko en fait euh, confusion daal am na daal daal ah, gën ngeen parce que confusion boobu li tax ñu ni ñu ma gën a fësal ni ni ni ni xëy na baaxul ci ñun mooy li urne yi joxe du turu Ousmane Sonko quand même waaw loolu la quoi mooy li ma la doon wax sànq rek mooy tey jii euh, Ousmane Sonko si wàllu boppam moo war a respecter texte yi au Sénégal parce que texte yi dafa am lu mu bind encadré am lu mu encadré jox président de la république rôle jox chef du gouvernement rôle am yaa ngi dégg c'est pas parce que tu es le chef de gouvernement que yow yaay gouverner dëkk bi dañu ne la yow yaay chef du gouvernement maanaam yow yaay diriger ministre yeeg yooyu si liggéey bi comprendre nga mais c' est pas parce que yaay gouverneur dëkk bi dafa am loo xam ne nii président de la république moom moo ko mën si dëkk bi mm-hmm. donc tey jii day mel ni président de la république ba mu demee France wax ay waxam parewul ci rencontre bi sax nga créer beneen euh, beneen wax boo xam ne ni peut-être lu fa président waxoon bu yàggee sax sa président bu demee fenn dañ koy doyadil la ñuy xam ni kii en fait moom benn pantin la rek on a un président pantin les gens peuvent se dire ça ne benn président la boo xam ne dañ ko teg nii ci kanam rek mais dirigé wul kañ lañ fi dégg offense au premier ministre mosul am offense au chef de l'État la ñuy dégg mais dégg nañ fi offense au premier ministre donc tey jii Alioune Tine nu wax c'est vrai mooy euh, Ousmane Sonko moom moo fi nekk di di buum xaw ma di buum di buum mi mhm. donc euh, loolu nag euh, confusion bi mën a créer mooy xam nga Bassirou Diomaye fay nit la comme man. Mm-hmm. nit la comme yow am na ay état d'âme am na ay humeur rek yooyu. Mm-hmm. tey ji peut-être bu ñu demee ba am euh, benn problème moom ak Ousmane Sonko loolu mën na feeñ. Mm-hmm. comme Senghor ak Mamadou Dia ñu nekkoo ñu nekkee woon doon mburu mais bañ demee ba am problème loolu dafa feeñ léegi nag Sonko man kon li ma la wax rek man dama jàpp ni tey jii nit boo ko jiitalee ne ko ah man de kii doy na ma. xelam doy na ma xalaatam doy na ma jàngam doy na ma si yu bëri il faut le mettre à l'aise peut-être loolu tax Alioune Tine ne moom da doon xalaat Sonko nekk être directeur de cabinet nekk à la présidence comme ça di déggoog président ak yooyu bu boobaa ji bëri di nga si déggoog président mais annonce buy am président la république moom mooy ñëw taxaw def ay annonce am yëgle lu mu war a yëgle mais yenn yi moom bu koy def rek euh, ak nu muy présent de trop bon Euh, les gens peuvent peuvent avoir des craintes par rapport ak loolu parce que Sénégal xamul loolu te tamit je pense que li nga xam ne nii moom mooy institution bi doon président de la République institution boobu kenn waru ko doyadil ñu bëri duñ ci bàyyi xel mais des fois yenn acte yu muy posé ce président dem fenn pareegul sax yow nga def ay yeneen déclaration bu yàggee sax président de la république moom day mel ni ku tuuti daal day mel ni moom amul benn dayo sax Euh, moom Ousmane Sonko ba muy ñëw noonu palais Bassirou Diomaye fay nekk fa mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye dem ba installé wu mu ñëw en retard mm-hmm. teewul mu forcé ñëw dugg ci rang bi mm-hmm. man bu ma nekkoon le protocole militaire dama koy tegee na le ah damay jël sama responsabilité ne ko la président est déjà entré yow mënatoo dugg na mer bu futt moo xam ah mais na la dàq na la dàq il faut savoir respecter les règles faut savoir respecter les règles mënuñu teg ay règles ne règle bi lii la yow nga ñëw pour tes beaux ñu changer règle yooyu mhm. est-ce que loolu c'est logique c'est pas logique moo tax Ousmane Sonko si wàllu boppam je pense que moom si wàllu boppam moom moo war a dimbali Bassirou jommay Faye moom mu ko ñenn ñi war a dimbalee mhm. comme ay ku ñu doon wax léegi mooy euh, comment il s'appelle euh, Cheikh Oumar Diagne mu leen war a dimbalee parce que tey jii par rapport ak lu xew biir Touba moom Cheikh Mari Diagne Touba ñi ñu ñu fa votel passé c'est énorme dafa bëri ci événement boo xam ne ça amène des des des milliards c'est des milliards Cheikh Omar deful dara courrier bu dugg palais Omar Omar Serigne Cheikh Omar deful dara courrier bu dugg palais du SAP ah, mais dama dama daa juum rek loolu dëgg waaw moo tax ma koy kii courrier bi adressé wuñ ko Cheikh Omar Diagne palais lañ ko adressé. mais moom Ousseynou mi mooy tontu wala c'est Omar Diagne mais dañ leen jox ndigal mu moom palais directeur c'est le directeur des moyens généraux. je voilà bu ñu la demal léegi nag en tant que directeur des moyens généraux. Mhm. genre pro genre kii yooyu bu amee sollicitation moom moo war a def diligence yi quoi moom moo war a moom moo def affaire yeeg yooyu léegi nag bon. xam nga président yëg na ko loolu tamit du hasard quoi. président yëg na ko. ah na ko ko joxoon ndigal ne ko nañ leen ko defal ni mu ko bëggee Cheikh Omar Diagne daa ñemee loolu xel ko xalaat. d'accord bul xoolal Cheikh Omar Diagne moom maa ko gën a jéppi mais mbir bii du ci dara dañ kaa diggal rek mu def. d'accord bu ñu ko digaloon leneen loolu lay def. ñemewul loolu sax. d'accord très bien euh, euh, Serigne euh, où est-ce qu'on fan la ñu mën a yóbbu ci wax dëgg yàlla un premier ministre qui qui est presque le président de la République. xam nga yoo confusion nga njëkk a sax non mais non mais mais Serigne du confusion xam nga. waaw bu fekkente ne ñun sénégalais yi. dafa am xam am tur tur. Mm-hmm. xam nga président de la République tur c'est ñu ni la basiiru jomaa Diakhar Faye xam keroog bi muy def. xam nga maa ngi gis sermon bi muy def sermon maa ngi gis am ko collé keroog bi ko birima euh, du jàkkaarloo di ko tuutil. Mm. boobu il était tout petit. taxaw birima était tout o nekk ci kii bi régime bi am doole à la limite da nga yërëm. da nga yërëm da nga yërëm le président euh, jamono jooju Bassirou Diomaye Faye nekkoon rek euh, bokkoon ci parti Pastef aujourd'hui moom la takkal caq bi comme li ñuy wax moom la ñu takkal caq bi moom la ñu takkal bandourie bi mooy chef de loo xam moo yeeg mooy le premier sénégalais aujourd'hui kon kooku est-ce que war nañ ko jël rek def confusion te yow ki ñu lay defal confusion mais yow yaa ko tabb yow yaa ko nommé loolu fu mu ñu mën a yóbbu aussi c'est grave hein. Euh, xam nga li moo tax ma ni la il ñàppa a pas de confusion man gisuma confusion man kooku sama ultime conviction la man Serigne Niang gisuma confusion gisuma ko en réalité la ma gis man may ma ñëw waaw xam nga sànq tout à l'heure wax nga surtout xaw ma lan ak lan gouverner je suis pas d'accord si loolu on parle de gouvernement quand on parle de gouvernement on parle de gouverner mm. kanay gouverner ak ñeneen gouverner c'est le gouvernement qui est le chef du gouvernement c'est mm. lui moom la ñuy xaar wax naa la ko léegi pour pour un petit rappel moom la ñuy xaar assemblée nationale gis nga dafa am réew mi noo xamante ni noonu la tëddee sur le plan institutionnel. dafa am sëriñ gouverner ça a un sens plus large. waaw mën na ne mais dama déggoo ma ni sama ultime conviction. que celui qui gouverne. non déggoo Omar déggoo ma ni sama ultime conviction. le président de la république dirige. man je parle ci ni ma xamee. Mm-hmm. c' le président de la république qui dirige. il est le dirigeant. du pays kan. le président il gouverne. waaw mais mën na ne du ne nga am nga sens beaucoup plus large. xam nga bu ñu demee ci bu ñu duggee ci segment yooyu dañuy dañuy mën nañ mën nga d' accord ak man mën naa bañ d' ak man. Mhm. parce que ci sens bi ma ko apprécier wee mën nga ko bañ a apprécier ci sens boobu. Mhm. ku si nekk ak sens bu mu koy apprécier mais man dama ne si sama ba may commencé dama leer dama ne su suma ultime conviction man la. Mhm. personnellement man dama gëm ni Ousmane Sonko moo war a doxal te mi ngi doxal man loolu laa gëm. mi ah, waaw mi ngi doxal te moo war a doxal. man loolu laa gëm parce que lu tax nag. te ñun waaw mais li tax expliqué naa la ko. bu yónnee ne président li muy. voyage lan la ñu mën a indil. déedéet non c'est que da ngeen fi tegul argument bu leer. loolu mooy problème bi. un deux trois ñu ni président la muy voyagé dafa bëri dafa war a toog ci réew mi bu voyagé wut kuy voyage président bu toogul palais ci lu muy toog président bu ñu koy dégg. dañ ko war a dégg ci loo xamante ni véritablement nekk na lu am dayo comme li nga xamante ni aujourd'hui xaw na waaw jamonoy Adji Sarr ja dañ doon wax naan dégguñ président dégg guñ président problème bi moo ci war a wax dégguñ président mooy bi muy génn naan je vous ai compris avant muy génn wax nañ lu ne dégguñ président dégguñ président alors que président détails yi détails yu mœurs bugg ci woon sax taxaw trop parce que boo xoolee le livre de Madiambal Diagne ce qu'il laa révélé mooy moom bi mu ko nee tak yëg lam ca wax mu ngi ci biir livre bi jarul ma fi nekk di ko waxaat prérogative bu génn di wax mais pourtant génn na wax. parce que c'est le président de la république. waaw tu me rejoins un petit peu. Amadou Ba génnul wax le premier ministre bu bu Abdallah Diop génnul wax c'est le président qui est sorti. Fatima da ngay def la part des choses aussi. Mm. si ñana wax na président génn est-ce que président dafa waroon génn. président ñaata yoon ni ay nit interpellé ko ne ko da nga gën war a génn ci wax wax ci mbir nangam génnul parce que xam na ni moment boobu warul génn warul génn warul wax. bokkoo ci ñu ko doon wax mu génn. demal nga xooli ko mën nga koy laaj rek man nga koy laaj da ngay dem xooli ko man dama ne la li ma lay wax nii loolu laa mës a wax yow laa wax est-ce que bokkoo ñu doon wax da ngay dem vérifier ji nga xooli non da nga naan ma wii wu non rek non mënu ma la wax wii wu non parce que la ma wax daa bëri Serigne le fait ñu changé protocole bi président ñëw ndaje am président ñëw yàgg na premier ministre mujj ñëw te premier ministre bu fekkoon président xas ba installé wu. man xam nga sama problème mooy. waaw te vidéo baa ngi fi non taxawal ma ñëw du ngeen ma may mu continuer. xam nga man. Serigne demal da may laaj ma tontu ca la nga ma laaj. d'accord très bien demal man dama ne la tout n'est pas rose. mais ko yàq. waaw xaar ma ñëw tout n'est pas rose. quand je ne pas d'accord je dis je ne pas d'accord. man amul kenn si ñi ngeen di wax nii ñëpp ku ma ci jox dërëm ma koy waxal. ba may jàng sax fekkewuñ ko. xamuñu ko. Hmm. te am na si ñoo bëri ñoo xamante ni fii ñu ngi wax man dàquñu maa jàng waxante dëgg dama ni tout n'est pas rose li nga wax noonu je suis parfaitement d'accord mm-hmm. am na loo xamante ni Sonko waru ko def c'est pas digne da pour pour une république comme le Sénégal mm-hmm. c'est pas digne waru ko def président warul toog di ko xaar loolu laa la wax mais dama ne li ma d'accord je dis que ni lii laa d'accord am na ça existe dans le code pénal foofu laa doon jëm ak offense au premier ministre xaar ma ñëw déedéet xaar ma ñëw offense au premier bëgg ñuy leeral rek non non euh, Serigne génnuma débat bi damay. non génnoo de mais da dama bëgg ñu leer mais interruption yi aussi des fois day non dama la bëggoon indi si ay points rek. bàyyi ko mu yeggalee muy offense au premier ministre. ba hmm. lan la ñu wax dañ ne si koo xam ne waxuñu directement offense au premier mais dañ ne kenn koo xam ne ni il exerce en partie certaines prérogatives du président la république kon ça veut dire que jël nañ dara ci président la république jox ko. jox ko léegi dama ne yow kay leeral nga wax ji. waaw hmm. le premier mais loolu si yan texte lañ ko lañ ko lañ ko signé non maanaam y' a pas de modification de la constitution wala y' a pas un projet de loi wala une proposition de loi boo xam ne nii. loolu nag lañ bëgg a dugal assemblée ñoom loolu lañ bëgg a changer. man je dis que tey ji nañu respecter les règles. balaa nga balaa dara di xew tey ji balaa ngay jël ay prérogatives wala affaire mais nañ dem modifier les textes. ñoom waxoon nañ depuis le début que tandem lii ñun lii la ñu am suñu ambition mooy président vice président wala mu doon benn tandem ainsi le coach nañu bàyyi peut-être bañ change loolu rek laa bëggoon apporter en comme précision mais c'était pas pour non non xam nga li def nii dañuy jaxase du la dagaat du la dagaat demal <laughs> non man ko damay bañ nga jaar ci àll bi premier ministre offense au premier ministre existé wul ci code pénal article moo jox premier ministre kon yéen ñaar wuute ngeen waaw existé wul ci kon yéen ñaar li ngeen wax waroon na sax. non waroowul. déedéet waroon na pouvoir contre la kii dañu la constitution moo ko li ñu wax waroowul de. waroowul attention li ñu wax waroowul dama ne la. Mhm. offense bu ñu nee offense au premier ministre. waaw dañ ko wax pour mu leer si nopp nit ñi. mais dama ne la offense à une personne boo xam ne il exerce certaines prérogatives. Mhm. du chef de l'État. voilà ci chef de l'État lañ ko sukkandikoo. pour indi offense au premier ministre. parce que nee nañ moom Ousmane Sonko yenn prérogative yi chef de l'État yi moom moo koy. exercer moo tax ñu jaaralee ko noonu. moo tax te loolu amul mais juge bi da dafa dindi ne loolu amul. da ko écarté saa d'accord léegi ko mu yeggale yeggale. mais xam nga xam nga man du ma leen interrompre. yaatalal ko waaw yaatalal s'il te plaît. voilà euh, Serigne.